mu doon lu doomu gox bi yëpp di rafetlu moom ñu lee nekk directeur général bu bees société bi di Dakar Dem dékk moom nag moo daal di génn woo askanam ngir rek ñu ñëw daal di setal bile plage li ni mel nag kilifa yi di ko rafetlu bu baax a baax. gis ngeen géej gi nu mu mel fii ñu taxaw nii dañu fi daan fërënku bu ngeen xamul fërënku mooy boo sangoo géej boo génnee nga seddal sa yaram si suuf si. mais suuf si dafa dee léegi ndiga salté damay bañ a ne cité cité cité cité mais site environnement yëpp fii la ñuy sotti seen kii mais loolu du continuer ñii fi dëkk ay nit la ñu comme ñoom di wax na rek encore une fois metti na salté na ka fi dëkkul doo ko xam daanaka ca fajar lañ daal di daje fii ngir rek daal di tàmbali liggéey bi peel brouette oto lépp a fi nekk ci matériel ngir rek bi la bërëb daal di set wécc vraiment nous encourageons nous félicitons mais aussi nous demandon aux populations ñu dolli góorgóorlu bañ a tilimal. moom mi leen nag di rek gën a ñaax askan wi ngir ñu gën a góorlu ngir bañ di tilimal bile plage. ngir rek ku ne di si mën a gis boppam. ndek profiter si turbine bi pour sensibiliser waat waa Yoff yëpp euh, ba xam ne bu ñu jógee si journée tey bi dinañ mën a def un cadre boo xamante ne nii assez représentatif pour que ndëkk ñu commencé xalaat. pour teg ay solution yoo xam ne dina fi jëlee kanaal bi parce que nag bi ñu koy defal pour ndoxu taw la woon mais bu demee nag ba nga xam ne day indi ndox moo xam ne ndox mu pollué la 24 heures sur quatre sans aucun traitement loolu nag jot nañu jël ci ay solution 1 juin lañ nar a amal liñ tubé journée citoyenne wante mu mel ni rek ñoom ñi lay tooguñ rek di xaar bis boobu jot ndax daanaka tàmbali nañ liggéey bi